ok sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno mu ngi lay nuyu bu baax dégg nga waxtaan wu am solo bi nga xamante ni Serigne si la def na ko mu jëm ci yenent bi sallallahu alayhi ak ni mu nekkee woon ak ñi nga xam ne wuute nañoo xalaat euh, euh, ci wàllu diine wala ci wàllu gis-gis mu thème bu am solo boo xamante ni at mu jot danañ ko tànn waaye yow laaj bi ñu lay jagleel rek xam naa ne xat nga waxtu wi kii na mais lu waral ngeen tànn thème waaw euh, xam nga ni ñu ko doon waxee rek ci waxtaan yi waxtaan yi weesu maanaam gis nañ ne maanaam dañuy jàng barsan ak gis moom mooy mu xadim gis ne euh, fi nekk nii jaaru na ci jamono ji ñu toll euh, ñu ngi jëm ci ay xew-xew yi am ci kanam te yonent bi mooy suñu roy fekkee ne. xëccal mu sos xëccal mu xamal ne sos mais. mën na daan jëflante ak ñu wuute ko. xam ne farata lay doon ci waxtu yi ndax am soxla lay doon ci jamono ji rawatina kon xam naa waxtaan wi nga xam ne moom lañu doon laytaale guddi gàmm gi mooy doog a jeex nii ñu ci doon waxtaanee tomb bu am solo ndax xam ngeen ne gàmm itam wone jikko yonent bi salaay salaam la ak ay jaar-jaaram ngir ñu mën cee jële ay bind xëy na jikko yonent bi yëpp sax mënees ko waxtaanee ci génn guddi waaye dana laaj ñu tànn ci euh, benn tomb boo xam ne mënees na koy yóbbaloo loolu bu ñu ko dee def bu yàggee rek euh, jikko yi yëpp yi ci ëpp danañ ko danañ ko mën a pekk ren nag ñu tànnoon tomb boo xam ne bu am solo la mooy yonent bi ni mu daan ni mu daan jëflante ak ñi nga xamante ne ñoom la wuute loon xalaat moo xam ci wàllu diine wala ci gis ngeen Serigne Mourtada Sylla gën joxe na ci ay exemple yu bari waaye ñu taxaw koo xamante ni itam euh, borom xam-xam la di gëstukat Euh, di imam di di di di kàngam ci yoonu murit muy Serigne Mountakha Diatara bokk itam ci membre yi daayira Rawdu Rayaahiin di mboolam xam-xam borom xam-xam yi nga xamante ni ñoom la sëriñ bi denk lépp lu aju ci wàllu xam-xam ci ci ci dëkk bi euh, ñu taxaw ak moom euh, sëriñ Mountakha ginnaaw bi ñu la nuyoo dégg nga tomb bu am solo bi nga xamante ni moom la sëriñ Mourtada si la doon waxtaane tey mu yonent bi salaay salaam ni mu daan jëflante ak ñi nga xamante ni ñoom la wuute leen xalaat yaakaar naa tomb boobu buñ ko tànnee ci contexte bi ñu nekk nag ci jamono ji ci Sénégal yaakaar naa ko gën a farata ndax gis nañ coow yi fi am ci wàllu euh, euh, xëccoo ci wàllu diine ci wàllu tarixa waaye itam ci wàllu doxalinu réew mi euh, politique ba mu jur ay njombe yu baree baree bare kon yaakaar naa buñ ko tànnee tey bokk na ci tomb yi nga xamante ni yi ëpp solo la loolu ci mën a loolu ci mën a jàngatal ci tomb waaw jërëjëf sëñ Ablaye ñu ngi nuyu mbokk yëpp te di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xam ne ci ay citoyens yëpp ak ci biir réew mi nag kon jëflante bi tam day doon jëflante boo xam ne dañ koy teg ci jëflant kenn ku nekk jàpp na sa morom citoyen la am na àq ji nga am mm. ji nga àq ji nga am ci réew mi moom la am ci réew mi loolu nag mënta am lu dul dañoo déggoo ci ay mbir dañoo déggoo déggoo ci ay mbir te déggoo yooyee lislaam dàq ko mosu koo dàq li ñuy wax naan lis dialogue euh, euh, euh, dialogue islamo-chrétien mm. loolu ñi koy wax dañoo xamut ndax lislaam ba mu ba mu amee loolu dafay yàgg mm. ba mu sosoo rek la judduwaale loolu lislaam ba mu sosoo rek la juddoo dialogue waaw man yonent bi def na ko ci Makka ba ba ba ñëwagul Madina mhm. def na ko Madina mhm. ba bi fi jógee saxaaba yi ak ñi ci topp ñëpp mhm. kenn ku nekk jolof boobu dañ cee ma a nekk kenn mosu cee jóg kon bu ñu demee ba jamono ñu defee ne day doon xew ñu di ko waxtaanee loolu ñàkk a xam diine la ñàkk xam lislaam la loolu li muy li muy li muy li muy tekki mooy euh, euh, euh, buñ ko wàccee ci suuf buñ ko wàccee ba wàcce ko ci Cheikh ba Bamba mi nga xam ne moo moo roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci léppam day gën a leer ndax ñun moom lañ moom lañ fekke moom lañ fekke jamonoom wala wala lu ëpp ci jamono moom lañ fekke ba tey kon dañuy xool ndax loolu yonent bi sallallahu doon dox am na fu mu ko jëmal waaw waaw am na fu ko jëmal mhm. ku ne xam na digganteem ak i noonam mhm. ku ne xam na digganteem ak ànd ak ak ñi dajaloon jamono mhm. ku ne xam na lañ ko lañ ko teg ci ay nattu ku ne xam na loolu lépp xam nga waaye gis nga lam def ba mu ñëwee def ne afawutu anil aadaay jéggal naa noonu yëpp jégal naa noonu yëpp la wax afa li wa ci man anhu afa ankum afa ngir yàlla mi ma jégal man yàlla laa seet ba jégal leen yéen ndax yàlla man man man dafa maa jégal man kon war na maa seet man li ma defal ma defal leen ko yéen tam kon loolu lépp ay exemple yoo xam ne li am solo nag mooy ñu jël exemple yooyu nag bañ koo waxtaanee rek ci guddi euh, euh, gàmmu mu jàll ñu ne jàll na waaye ay bind la yoo xam ne dañ ko war di jël di ko jëfandikoo ci suñu dund suñu réew mii ñu nekk toll na foo xam ne ci ak waroo toll na foo xam ne ci ak juyoo ci yu bare bare yoo xam ne sax gën naa néew ya ya doxoon diggante yonent bi ak ak i noonam gën na koo néew waaye teewut mu indi ci ñoon ak juyoo li war a am kon mooy ñun ñëpp ñuy jàngat bind yu mel nii yaatal suñuy dënn yaatal suñuy dënd ci wàllu diine ñi ngi ci wuteel yaatal suñuy dënd ci wàllu tareexa ñi ngi ci wuuteel yaatal suñuy dënd ci wàllu même politique ñi ci wuuteel kenn ku ne jàpp ne sa morom ni nga amee droit ci gëm dara nekk ci jàpp ko noonu la sa morom amee droit ci gëm dara jàpp ko waaw ah, surtout sëñ Muntaxa ci loolu ci gis-gisu politique waaw waaw xam nga ne bu ñu wuutee ci wàllu idéologie politique mhm. ci wàllu doxalin mhm. ci wàllu ni ñuy bëgg a réew mi mhm. loolu ndax war naa jur ñuy juyoo ba àgg ci ay rey ay bakkan wala ay ay yàq yàq ci ay alal ci loo xam ne ñun ñoo bokk réew mi waaw loolu sëñ loolu loolu xam nga ne euh, mbirum politique la comme mbirum adduna la waaye c'est yi tere waxuma laa ci mbirum politique ndax mbirum politique moom mbirum adduna la rek dëgg la diine ngi ci waaye mbirum adduna maanaam ci mbirum adduna jii ñu sëq la kon sekam yonent bi di ak diine ni mu amee solo ak pas-pas bu rafet bii waxuma laa ki nga wuuteel politique ko war a diine bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne yonent sax la doon ñoom ñun ñi ay julli na kon naka noonu ñi ñu wuute adduna dong lañ wute kon lañ wute ci àdduna it dañoo war a mën a jéggalante kenn ku nekk jéggal sa morom ci lam gëm yow nga gëm li nga gëm ngeen doxal doxal yi nga xam ne yéen a bokk réew mi boo liggéey ki si biir da ngeen di àndaat ku gis gàmm gi ni mu demee rek nga xam ne loolu lu mën a nekk la ndax boo demee ci gàmm gii boo dikkee Touba yi ñu ngi leen di bu baax di leen dañuy jàppante di joxante loxo euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi mu wéral ko barakati xaadim rasul comme ñu fas yéene leen fàttali rek ni nga xam ne ni la ñuy fas yéene dundale guddi gi ci programme bi gis ngeen ñi nga xam ne moo ki nga xam ne mooy jiite njàng mi di sëriñ Ahmadou Badawi mu Cheikh Mouhamadul Fadal di ko ànd ak sëriñ bu Bousso ak sëriñ Abibullahi Jatara su ko defee kon niñ koy doxale mooy suñ jàngee buntu barsan jiyu kuréelu jës bu dana jël bu noppee kuréelu muwaay bu noppee muxaddimaat kenn ku ne ci ñoom dana jàng fukki bayit ak ñaar noonu lay fas yéenee doxe incha allah am na waxtu woo xam ne nag buñ ca àggee sëriñ bi dafa digle ne suñ ci àggee ne ñëpp jóg ngir màggal yonent bi sallallahu alayhi wa mooy waxtu bi nga xam ne borom barsan ci lay nettali ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi gane àddina incha allah suñ ci àggee ñëpp jóg taxaw ngir màggal yonente bi su ko defee noonu lañ koy fas yéenee doxale mu ànd nag ak njàngoom alquran ak xasida ak euh, képp koo xam ne daal yor nga sa kurus nga wala nga mën a wax dara nga di ko def te suñ dee wax atrilahuma xabrahul karim bi harfin sasin min salatin wa taslim képp kuy góor boo mënee aw yëkkati sa baat ca kaw nga def ko jigéen ñi mën nañoo yelu waaye ñun ñëpp ñu teewlu rek te yéene te kenn ku nekk yeesal sa pas-pas te sellal te sunu borom nangul ñu bi barakati xaadim rasul kon su ko defee ñu fas yéene tàmbali liggéey bi. auzu billaahi mina shaytaani bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi allazi iftataha hada alwujuda bi nuuri lmuhammadiyi assaari fi kulli xadiyatin wa jaala bi buruzi daatihi ixtitaamahu wa intihaa wa xassa ahlahu alfaaxira wa naslahu altaahira bil asraari alilahiya fa kaanoo xisnan xasinan li ahli al ardi wa liddiini ximaa wasalaatu wasalaamu ala xayril bariya wa ala alihi wa asxaabihi wa ataabi wa atbaacihi wa man wala wa baado fa yaqulu alcaarifu allazi xaaza min alfadaili kulla mixnatin saniya wa taxalla bi cilmi aldaahiri walbaatini wa saara daydanahu wa gaayata marmaa ذو النسب الطاهر الذي يحبه في القيامة منج من النار المحمية مولانا السيد جعفر بن حسن من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده ساغية ساقية ساقية هنية ممتطي ممتطيا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرل الكريمة والجباه wa astamnixu llaha taala ridwanan yaxusu aladrata altahirata annabawiya wa yacumu alsaxabata walatbaa wa man wala wa astagdihi hidayatan lisuluki subuli alwadixati aljaliya wa xifdan min algawaayati fi xitati alxatai xataaya عطل اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم اللهم قبره الكريم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم الكريم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الله allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli wa وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحق المبين من كونه كون أولياء بين على الكتاب المصابين به مع جميع إني Yeah. ila زر جو Mahatma silatu bi